ci leneen muy dëkkuwaay ci lëndëm tey jile fële lañuy dem ci banlieue bu ndakaaru rawatina ca Pikine dem fekk ji fa Habib Faye Habib Faye am na fenn fu ñuy fajoo foofu tur bi ñu bëri miinuñu ko Habib ginnaaw ma la nuyoo ba noppi lan la maa ngi lay fay bu baax a baax bu ñu gisee arrière plan bi xam ne ñi ngi ci centre de santé bu Dominique waaye Dominique tur bi euh, da loo xam ne dañ ko bëgg a gëstu bëgg a xam fan la tur bi jóge lu waral tey ñu tuddee ko Dominique ñu fas yéene koo ne askan wi ñu dugg ci biir laaj askan wi xool ba xam xam nañ fan la tur bi jóge ma jéggi tali sëñ bi na nga def salaamaaleykum papa xam nga Dominique euh, loo dégg ci Dominique. Ah, li ma ci xam daal jàmm rek ak def lu baax. mais yow xamoo fa tur bi jógee. dégg naa yu doon wax benn portugais bi ci ko Dominique waaye fekkuma ko yëguma loolu laa ci am. jërëjëf. yaay booy maa ngi lay nuyu. ah maa ngi lay fay. yaa ngi si jàmm bu baax. maa ngi si jàmm waaw euh, ci Dominique ah Dominique bi daf dëgg yàlla baax nañ mën nañu faj am nañ jàmm laabiir nañ. turu Dominique loo ci xam. turu Dominique ah xanaa lu baax rek. xamoo fu tur bi jóge ah xamoo fu mu jóge nag xamoo fu mu jóge moom. jërëjëf. ginnaaw bi askan bi waxee seen xalaat ci fan la turu Dominique jóge dañuy dem ci góor gi nga xamante ne yàgg na pikin fii la fekk baax muy góor gi Aly Cissé ñu gën ko xam ci jëwrin moom moo ñuy gën a xamle turu Dominique fu mu bawoo fu mu sosoo kan moo nekkoon Dominique bi nit ñi di coow fii ci diwaanu pikin ñu dem seeti côté ñëwaat. asalaamaaleykum ah. jëwriñ jërëjëf <laughs> barab bi daa mel ni miin nañ ko waaw miin nañ ko loxo fu mu jëlee doom delloo fa jërëjëf waaw miin ah, xanaa kay ñu gannaaw nuyoo rek ah, jërëjëf ñu ñu ñu door li nga xam ne ah. moo di waxtaan gi jëwriñ turu Dominique euh, Dominique moo nekkoon photographe président Léopold Sédar Senghor kon foofu ci àngale bi boo jógee télé yu mag jëm ci dispensaire bi tey juddee Dominique mu nekkoon sa wetu càmmoñ amoon fa benn car rapide bu xaw a landi bu fa gaaree woon ak benn kafe léegi café ni ñoo xam ne boobu barabu jaaykaayu sëngaloon waaye yi amoon yaram nii yoroon engin euh, dañ ne sax njaago la ndax xam naa turandoom bu yàggul sax la wàcc bu liggéey turandoom kii ko tuddee Dóo grand Dóo xam naa ko baax moom photographe la léegi nag moom moo dem ba ci biir mu nekkul un ko dispensaire bi gannaaw bi ñu la mujjee doon ba tax na sax ñu si bëri bu ñu duggee oto dañ naan ko may ma Dominique. mais mais mais mais noonu la demee ndax ndox bu yàggee sal jël jikkoom ndax boobu sànci yi demeewul ni mu demee tey boobu sax gannaaw Dominique ay toll la woon waa Thiaré fi bay ay toll la woon fii nekk foofu euh, sànci yi ay toll woon même ci biir sax si PMI bi nag ñun suñu terrain football bi ñu nekkee tout tànk boobu demul ni mu demee terrain football loolu. amoon ay garab gerte tubaab maa ngi ko gis comme tey waaw léegi nag ku ma saan jënd maa ngi jëm kër Dominique far ñu tuddee ko dispensaire Dominique par la suite nag lañ ko tuddee un grand Pikinois ñooy xare Baye Talla Diop mais Dominique noonu noonu noonu noonu noonu noonu la tudd wax dëgg yàlla. kon jamono ji soppi na ab tur. soppi nañu turam ba tudd ko ñu wax rahmatulah alayhi Baye Talla Diop. jërëjëf euh, jëwrin Baye Alé Cissé xam-xamam màccul lool ci li nga xamante ni moo di taarixu Pikin hmm. saa su nekk mooy ki ñuy gindi askan wi am nañ yaakaar ne itam jàngaat nañ ndax ñun ñi nga xamante ne juddoo nañ Dominique waaye xamuñu woon fan la tur bi kan moo nekkoon kii di Dominique Mendy hmm. bi ñuy wax hmm. tey jii grâce à ba jëwrin Baye Alé Cissé xam nañ ko bu baax a baax lii moo nekkoon la nga xamante ne ni indiloon nañ leen ko tey ci rubrique de quoi est-il le nom dig daje ba beneen incha allah. incha allah Abi Faye merci beaucoup merci jërëjëf malheureusement.